asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku improt mbokku Ndakaaru tey jii ñu ngi fi tey kër sëñ Ablaye Thiaw Laye bu Rose Diagne sëñ Ablaye Thiaw Laye bi la xam ni sëñ Mor Laye mooy baayam tey ñëw fii ci appel Laayeen ñu appel sëñ naa Limaamu Laye à Ndakaaru Ndiaye seen soppe seen xarit seen am di jàmm buur géwél lépp grand reporter de Impro TV ñëw na tey fii ci appel bi ànd ak Medoune Diouf bu baax bi te leer ah suñu foofu nag ki la xam mooy grand sëriñ Dakar muy doomu Bassirou jaañ Marème yàqu yaay Baba jaañ wax na wax bu rëy ci Sénégal nee na Sénégal kenn ko taal wax na ci report élection yi wax na ci la xam ni mooy waa conseil constitutionnel wax na ci la xam mooy opposition ak pouvoir kon Sénégal koj leen ko ci impro impro daal lu leer nañ les grands événements sans impro woo oh, mbay ce n'est rien. salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii ak euh, grand sëriñ de Dakar euh, Pape Diagne mi nga xam te ni moo fóotu sunu baay euh, grand sëriñ de Dakar El Hadj Bassirou Diagne ñu fekk ko fii ci Cambérène ci appel bi appréciation nga am ci appelu ren bi cent quatre cent quarante quatrième édition asubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi salallahu alayhi xanaa di leen nuyu nag ak di leen sant ci seen taxawaay santaat yàlla bi mu nu mayee kattan ak wér ba dajawaat fi te yàlla na sax yàlla nañ fi daje déwén appel bi nag comme ni ngeen koy déggee ajiboo daaye laay la woote yàlla la ku ko woote Seydina Limaamu lay alayhi salaatu wassalaam woote ko fan fii ci Ndakaaru ci lum ñu woo mooy yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag mooy li nga xam ni moom la yàlla santaane pour jullit yi di daje daje boo xamante ne bi ci farata lay su lay sukkandiku ndax bis yi naa Limaamu alayhi salaatu wa salaam daf ñu ci fàggul yu bari fàggul ñu ci yërmande ci yàlla fàggul ñu ci jàmm ci yàlla fàggul ñu ci ràmm safaatal kubra ràmmu jàmm ñu ëllëg mu sàgg loolu yëpp daf ñu ko ci fàggul kon képp koo xam ne jullit nga te sa jot may la ko boo fi mënee agsi boo fi rotee di nga bokk ci ñi nga xamante ni bii dañuy taataan ci yiw yi nga xam ni moom si Seydina Limaamu liggéey ngir jullit yëpp kon loolu mooy li nga xam ni moom laa ci gis di mooy li ma ci apprécier apprécier ci ni aussi dajala boo xam ni jullit yi danañ yendu ci ñaan xëy ci yendu ci fanaan ci yeewuwaat xëyaat ci loolu te nag réew mi soxla ñaan jullit yëpp soxla ñaan kon ñaan yooyu yàlla na ko sunu borom nungu sëmbaxtal ko si biir Sénégal. réew mi soxla ñaan euh, jullit ñi soxla ñaan ñu gis ne actuellement dëkk bi dafa xaw a jaxasoo trop trop trop ba ngay porteur de voix di kilifa du ñàkk ay kàddu yooyu indi jëmale ko ci population bi waaye itam jëmale ko ci kilifay réew mi. wax dëgg yàlla dangay sama xarit lool. sama rakk ñu tàmm di daje fii waaye wax jii may wax nag mën naa ni tàggoowuma ndax man damay faral di tàggu sama bokk lébu yi bala may wax ci benn situation ci réew mi waaye nag comme réew mi daf fi tollu nga laaj ma ci bañ cee wax sama xalaat du farata waaye nag li ma lay ñaan mooy lii may wax it su sañoon lépp ñu dégge ko ni ma ko waxee réew mi nañu jàpp ni coow lii fii am lépp ci coowal politique la te sénégalais yépp nungu loolu ni xeex bu fi am ak xuloo bu fi am jógewul ci këru diine yi jógewul ci waasu jógewul fenn lu dul ci way politique yi way politique yi nag war taxaw seetlu seen bopp ndeem lii ñuy wax ni bëgg nañu réew mi ba mu jaral leen ko waral na leen a jalal que ñu bañ a taal réew mi ndax kët kuy xëccu nguur dangay ñaan yàlla xëccu ko ci jàmm fekk nguur gi ci jàmm nga mën koo jël ci jàmm liggéey ci jàmm li fi xewit li tax ma man cee wax seeti naa kilifa diine yi seeti naa woy politique yi laaj leen it li xew ci biir seeti parti bu ñuy wax parti démocratique sénégalais muy PDS te muy kii waral coow li déglu leen laaj leen wax leen lan moo xew ñu wax ma ko seeti naa président de la république laaj ko mu wax ma li xew li ma xam nag laa bëgg a wax ak sénégalais yi ci sa micro bii tey. élection dafa jot candidat yi bari ñu dem ci li ñuy wax parrainage te parrainage bi ñoom ñoo ci déggoo woon ma fàttali ni ba ñu demee ca dialogue national ba damaa waxoon ni commission politique bi nañ ko ubbi ñu am ay kilifa yu fa nekk pour boo ëllëgee bu ngeen di xuloo ñu xam lu xew ñoom politiciens yëpp ñu lànk ni duñ ko ubbi te ñu ngi may dégg te man maa wax loolu te kenn ci ñoom du ko weddi ba dialogue ba jeexee ñu daje ca président de la république wala jox rapport bi borom réew mi ba ma fa jëlaatee kàddu dama ni leen maa ngi leen di fàttali ni leen woon nañ leen ngeen ubbi commission politique bi ngeen lànk ni du ngeen ko ubbi tey bu ëllëgee bu ngeen di xuloo ku leen di atte fa lañ toll. lii lu am solo la ndax ñoom nañ jàpp ni réew mi nu ko benn parti politique moomu réew mi. PDS nag ba ma fa demee laaj leen lañ ma wax laay wax Karim Wade war naa mën a bokk ci élection yi ndax ñun Karim mooy sunu candidat laaj nañ ñu këyit yi ñu waroon a laaj yëpp joxe nañ ko ban ni Karim bokk na ci ñaar fukki yeeg benn ñu xëy suba ne nañu indi nationalité nee na booba Karim joxe na nationalité ba ñu laajee preuve mu indi décret. waaye man nag damay wax ci lu jiitu loolu li jiitu loolu mooy sang ba ca Touba mu Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla dolli wér ak sutura may ko fan wu gudd mu yàgg ci kaw suuf ci mbaaxam moo ñëw fii ci Ndakaaru ca Masaalikul Jinaan woo fa président Ablaye Wade woo fa Macky Sall jubale leen jubale boobu Sénégal gépp ku ne sa xol seddoon na ci ndax ñëpp ko doon sàkku ci jamono yooyu booba ak léegi Ablaye Wade waxul ñu ni ca biir waxtaanu Karim Wade nañ ko bàyyi mu àggale liggéeyu baayam président de la république jóge fa woote dialogue waxtaan ca laa bokkoon ca waxtaan wa la nga xamante ni bii mooy la fa nekkoon mooy fexe xalifa Ababacar Sall bokk ci élection yi fexe Karim Wade bokk ci élection yi loolu moo fa amoon kon ñoom ñoo ko nungu loolu moo gën a fort constitution moo gën a foor loi moo gën a foor texte parce que ay nit a koy bind waaye ay gor ñoo tëju ci biir néeg ni lii moo war a nekk beneen bi amul kenn kuy senegale fii ci réew mi te xamoo ni Karim Wade liggéey na ci gouvernement senegale te kenn musta wax Karim mii du sénégalais musta am musuta am ba bi muy génn réew mi ñu di ko fi génne di ko àtte tëj ko ci kaso bi lépp dañ ni mi ngi jóge ci ministère am yi mu yoroon kon waxtaan wax dëgg cala man nag du ma juriste droit bi sama yoon nekku ci waaye xuloo am na xuloo bi mu amee PDS ñu dàq seen candidat lii ñu def lañu ñu mënoon def am na yeneen candidat yu ñu dàq te mënuñoo def li PDS def lu ko waral PDS dañu am lu ñuy wax groupe parlementaire ñu ni seen candidat labaj da cee bokk dañoo gër premier ministre nangam am na kon ñun lii dañ koy yóbbu assemblée nationale ñu leeralal ñu ko ñu def commission d'enquête parlementaire assemblée nungu ko ñu def bureau bi lii nag PDS sama koy wax ñu xëy teg ci ay fan ginnaaw bi conseil constitutionnel bindee bataaxal ni duñ leen wuy si waru leen ñëwoo te lii ñu ko diggaale ak ñi ko def ñu ni kon ñoom nañ seet weneen yoon wudul rek enquête parlementaire bi kenn ca magistrat yooyu xëy porté leen plainte ñoom ñu ni plainte boobu bu procureur ubbee enquête judiciaire enquête parlementaire bi dootul nekk kon ñoom ci seen xeex ñu ni nañu génnaat def projet de loi pour demander le report des élections ñoom PDS ñoo ko dugal mais loolu mooy li am te PDS it loola yoonu may ko ko ñuy wax ci constitution bi constitution moo may PDS député laa waxuma PDS sax député boo xamante ni bii am nga jaaxle ci lëf ni di nga ko saytu di nga ko seet bu ñu ko nungoo ci biir bureau assemblée nationale te loolu mooy li am. ñu xëy ni am na ci jeneen jigéen di ñuy wax Vardini Rose ci sama jigéen. yàlla na ko yàlla defal jàmm di sama xarit ñu ni kat kii mënatu la bokk ndax am na carte d'identité France am na carte d'identité fii waaw ku ni élection yii ñu jëm njaal benn loolu leer na mais PDS du partie bu ndaw ndax nag wax dëgg yàlla war waras naa nungu Karim Wade Ablaye Wade def vingt six ans de combat dans l'opposition yore réew mi douze ans jur doomam ci geño ñu ni du sénégalais kuy wax loolu waxoo dëgg kuy loolu waxaloo yàlla kuy wax loolu naa féq nga bi Ablaye Wade di jël Karim Wade di ko def ministre de la République sénégalais yëpp ngi fi woon amul kenn ku wax ni Karim mii du sénégalais nekkam français am du lu mu laaj tubaab la ndax ndeyamay tubaab débat bi ñëw ni ci réew mi nag tax na ñi nga xam ne ñu ngi ci ñu ay sénégalais yori deem ay bitim réew man mii sama doom américain la man mii di wax a yéen sama taaw américain la waaye may bàyyam ku kon mën a tayee nekk sénégalais texte nag am na lu ko ëpp doole ndax texte nit a ko bind le droit c'est l'histoire histoire bi mooy Ablaye Wade jur Karim ndax nag waa PDS da leen nangu ñu jël tarif Karim Wade tër ko rendi tëraat ren di tëraat ren di ni patt pataaral loolu ci naafeq la bokk élection nag kenn ci ñi koy sàkku amoo marché ba ne yaay gañe ku ko wax da ngaa ku ko wax gëmoo yàlla ku ko wax da ngay fen ndax kenn la yàlla mayul boobu xam-xam ay njort rek fi am kon nag bu xuloo amee ca loolo ñu ne nañ ko saytu ñoom ñëpp dañu war a d'accord ci ni safara waru fee takk waaye man xam nga lu ma xamul te nu nungu ba ko ku jog nii na réew mi tàkk ku naan na réew mi tàkk ak taaleen réew mi bëggoo réew mi doo nit ku baax te doo am doo mottali doo am ndam kon nag kilifa yi nañ leen rus sëñ Muntaxa Mbàkke ñiy wax ñëpp kum ci ni woon taalibe yi bu subaa indil ma leen Touba des na la fotam dugal la ci oto indi la ci jëmmam te doo ci man dara te ma ngi ni tekk te kaaral mbay si Sy Mansour bu noon taalibe tijaan yi diw mii bëggatuma damaa bëgg ngeen jàpp ko indil ma ko balay ngoon ñu fotam la yóbbu Tiwaawan te ñu ngi ni pat pataaral parti politique boo xam ni amoo député amoo maire amoo dara te réew mi nekk ci te li ma ci gën a neqali rek mooy li ma xam ci biir te loolu laay bëgg wax bari na ci parti politique yi ñu ma seeti man ci sama jëm ñu ngi may dégg ñu ne ma grand sëriñ ma naa ñu ne ma dañ dàq élection yi billahi wal am na ci kilifa diine yu ma seeti ñu ne ma grand sëriñ lii nañ ko dàq ndax jàmm li ñu bëgg bale loolu di am mais lan mooy dàq élection ba ngeen bëgg fi taal réew mi élection mooy lan am na lu gën élection mooy réew mi nekk si jàmm ñun ñii ñoo gën élection fuuf te yéen ñuy bëgg a taal réew mi suñu ay carte ngeen soxla pour dem élection élection bu natt am ca jàmm kenn soxlawu ko société civile bi nag maa ngi leen di yedd ndax gis naa leen ngeen di woote aw ay société civile woote aw ay xanaa dañ leen a jënd bopp yor sam réew war a xaajatle war a jaay war a war a war a war a war a fexe ba réew bépp nekk ci jàmm yow nga ne yow yaay jiitu yaay woote ay te société civile boobu am na ñu ci dem seeti Macky Sall ni ko processus électoral bi dañuy yàlla dimbali dañ ko arrêté pour ñu dem ci yeneen élection yi normal am na naa fekk gi ñuy doxee nag la ñu war a teg ci suuf wax ak sénégalais yi lu dul dëgg bu guddee ñu raataloo ànd seen biir waxtaan génn fen sénégalais yi dafa doy lii mooy li am kon jàmm nag ñaara koy dox jàmm jàmm ñaara koy dox politiciens yëpp bi dee dalee am ba léegi gisoo ci kenn ci leader yi ku doomam dee amul dee am yëpp kenn laa wax ku ci leader koo xam ne leader nga sa doom dee amul amul waa léegi nag ñoom daal problème boo am ci réew mi daa koy faj taal faju dara te nag réew mi bu tàkkee ku defe di ci mucc nax nga sa bopp kon man li nga xam ne moom laa ci wax mooy ñoom ñaata yoon la ñu la ñu baare ñaata yoon la ñu baare yëgoo ñoom politiciens sénégalais yi ñaata yoon baare yëgoo boobu nag yamale leen ko ci seen biir te ngeen dox ko seen biir te bàyyi réew mi ngeen di bëgg a génne ni da ngeen leen di taalloo réew mi réew mi kenn du ko taal ku bëgg réew mi ku bëgg réew mi da nga leen taal réew mi. jàmm gën a élection. fukki yoon lu dul jàmm jàmm ku gën ku taal réew mi dafa ni Macky Sall nga ko def da ngay nax sa bopp Macky mii bu réew mi doon tàkk avion présidentiel bii lay dugg dem fu ko neex. kon dama bëgg ñu xam ni wax jii ñuy wax waxu picc la réew mi kenn du ko taal warta takk te képp koo xam ne yaa ngi koy nësër yàlla boo am jàmm. lan mooy élection ku wax fëgg sa dën naan waaw le Sénégal le Sénégal est lii le Sénégal est là les États-Unis les nangam nàngam mais dañ waxante dëgg américains yi capitaine lañ toj ñoom amuñu ku ñu jàngal démocratie élection dafa jeex ñu dem toj capitole tasaar ku ñu jàngal démocratie fii c'est des démocrates Sénégal ay démocrates fi nekk ñëpp fi ay démocrates ñun ñëpp ay wote ji mais su fekkente ne bii lii ñuy nësër bu demee jur ay waa bu ñu demoon élection ci lii ñu ni diw a gañe ñu gañewul lu ñuy wax nañu fàttaliku nag nag réew mi dafa am ñu nekk ci biti di bëgg mu tasaaroon ndax pétrole ak gaas kon ñun ñi nga xam ne ñoo moom réew mi dëkke ko am ci njariñ ëllëg duñu nungu réew mi tàkk tey guerre boo gis ci àdduna ci taabal lay mujje Ukraine dafa guerre ak Russie Russie def délégation Ukraine di def délégation ñuy waxtaan Palestine Damas ña ngay waxtaan Israël ña ngay waxtaan waaw lan moo tee réew mi mën a dem ci waxtaan lu tax ñu waxtaan mais waxtaan wi nag na nekk waxtaan u dëgg mais waxtaan bii ñuy wax ni président woote na ko buñ ko wuyoo tamit commission politique bi dafa war a leer dañ ko war a ubbi constitution bi article yi nga xam ne dara baaxu ci dafa lëndëm nañ ko dindi changé ko ay nit a ko defoon mais bis bu ne buñ demee ci élection am xeex constitution nangam euh, code électoral nangam euh, euh, mais dafa doy nañ ko toj waxtaane ko waxtaan wu dëggu kon man lii moo doon su ma wax di sant nag kilifa diine yi nga xam ne seete naa leen ñoom ñëpp ñu dalal ma dalalu jàmm li nga xam ne man moom laa amoon lu ma ciy wax te muy lu gàtt mooy gërëm parti politique yi nga xam ni ubbi nañ ma seen bunt ma seeti leen waxtaan ak ñoom waxtaan it waxtaanu dëgg woon mooy waxtaanu situation réew mi bu tolloo fii képp kuy kilifa gu baax dangay ngay dox seeti wax li nga xam ne mooy li gën ci réew mi waaye nag li ma dul nungu mooy wax ba pare génn ca la nga wax génn ci biti wax loo xam ne loola amul loolu tamit jekkul rafetul réew mi noo ko bokk mënuñu ko séddoo nan àndandoo liggéey ko ci jàmm ak salaam. élection benn bis la benn bis rek la te ñoom ñiy soxla réew mi ñun ñii bu ñu toogoon suñu kër ni duñu voté ji kenn du ci falu si ñoom kon nañ ñu jox cër jox cër bi mooy ñu laaj réew mi ci jàmm xuloo ko ci jàmm parce que ñoom bis bis nekk ñu xuloo rey ay nit toogaat ci taabal bis bu ne politiciens yi xuloo ay nit dee ñu bari dee ñu wëlbatiku dajewaat bis waxtaan ni loola nañ ko jéggalante seen biir mais kon loola nañ ko commencé lii daal laa amoon lu may wax di la sant bu baax. bi mooy euh, ngay grand serigne de Dakar Cap Vert gi maam góor war a am jaal boo war a jaal bépp askan bi nga xam te ni ci penc mi gis nga maa ngi sant yàlla bu baax bi nga ma ci posé question. démb dama gis doomam ndeysaan dugg di démentir parce que dañu maam góor gi lacrymogène na ko rey te yàlla xam na ni loolu du dëgg loolu mooy indi manipulation yi aussi ci biim réew mi ñi nga xam ne ñoo yor média nañ ci bàyyi xel maam góor gi suma kilifa la lébu la sama wëllëre baay la ndax man soo baay moo fi jëkk fay mbër un million dama ko daan seeti di ko yónnee ay ndaw ci ay teraanga kon kii gaañu ci man la bokk xanaa di ko jaal bokki Lebu yëpp région de cap di ko jaalit ñi nga xam ne ñoo yëngu ci làmb ji muy promoteurs yi muy mbër yi di wax ci jikkoom ñaar ku gëmoon Seydi Jamil la julit akan la woon ku laabiroon la ku amoon jàmm la yal na yàlla wàcc yërmandeem ci kawam te sàmm njabootam asalaamaaleykum mbokk téléspectateur u MPROD ñoo ngi ci appel bi kii ñu taxaw day xaritu cawlaay appelu ren bi noo ko gisee. appel bi daal ginnaaw bi ñu nuyu doomu adama yi nuyu sénégalais yëpp nuyu àdduna bépp tey nag ñu ci appel bi fii ci Cambérène kër Ablaye Thiaw mu Serigne Mor. doomi Adjaratou Rose Diagne ju baax ji mboolem kuy communicateur mboolem kuy nit ku baax mboolem kuy ab géwël ñëw nga ci bis bi tey ñoom aada xasaay te géwël yeeg ñëpp ñu ngi toog waaye yi maa Abdou Aziz si mu sëñ Mbaye si Abdou mu sëñ Abdou Aziz Dabakh Malick nga ca biir ànd ak Youssou Fall mu sërif Tilala Fall ñëpp ñëw nañu kenn desut li war nag mooy mooy Baye Ablaye dafa am nañ teg ñëpp man na ko ne xam na ne amu jot fan yëpp gënu ma quatre bi sax mujj moom dem Touba ndax. yaay borom Dubaay damaa ñëw jóge Dubaay sonn moo tax sax màggalu ma quatre waaye sëñ Fallou nag ku ko lebal mu fay la daal ma ñëw ci ba barabam ne ko Mbàkke damaa bëgg yéeg ci avion yi comme ñëpp waaye quatre yëpp bi bu mu desee fukki fan laa dem Dubaay. waaye kenn du Cheikh Fadel Mamadou Fadel waaye waaye ki woote bisu tey monsieur Ndaa Limamou yàlla fay na ko de. ku xool ku xool géej gi xool jéer ji xam ne seen naa limaamu lan li liggéeyoon suñu borom yëpp suñu borom fay na ko aji boo daay laay waaye nag euh, Médoune ma wax ne MPROD TV koo xoolul xooloo dara événement yu mag yi MPROD TV rek Médoune dafa ne impro impro improductif fexe nga nag ba ba gars yi bari léegi ñu ngi xëccoo waaye improductif bi mooy mooy premier moom la gars yi di fii merun an sama xarit ana madam mais daal da nga xam ne daal gone yi gone yi dama ko Dubaay laal ko autorité étoile nañ ma moytu na ma gone yi moytu dem naa Dubaay ba ñëw ba tey mbokk yi ñu ngi ci appel bi kii ñu fi gis nag doonul ku late du taxawaalu fenn fuñ ko woowul dafa dem aada xasaayit mu sëñ Bamba aada xasaayit national aada lu war a woon sa teewaay naa sant yàlla julli si yonent bi rek dañuy leen ñaanal ki nga xam ni moo waral appel bi mu Baye lay yal na ko yàlla dolli ngërëm doolu koy leer ndax bis bi yàgg nañ cee teew ba sëñ Mor Laye di dund booba sëñ Ablaye mii tabarkalla tout tànk la mu nekk ci wattu baayam rek di xool bàyyam fi mu teg tànkam di ko xool di ko xool ba yàlla ko gannaaw tey ji mu jëw lereer bi waaye nag ku des ku des dese tey ku yokkul wàññi waaye li fi sëñ Mor bàyyi ma Ablaye da ko yokk ànd ko yaayam soxna Rose jaañ mu Alaaji Basiru Diagne Marème tabaarkalla dafa am loxo yoo xam ni dafa am loxo yu ko jiitu yoo xam bu sete loxo yoo sa tegu faw mu set looloo waral sama sama sama sama teewaay ndax sëñ Ablaye day sama xarit di sama sëriñ di sama lépp fonkol ma boppam ndax man ci ak yëg laay dox ci sentiment laay dox te am na ko ci ñun looloo waral ñu bàyyi suñu yëpp ndax coono yi bari na barki démb lañ jógee kasor yam waaye nag lu baax moom du doy lu baax amul frontière fu mu nekk rek kenn war see tay moo tax lu ñu sonn sonn sonn lu baax du ko yëg ñu naan aada borom Côte d'Ivoire lu xew Côte d'Ivoire waaw Côte d'Ivoire xam nga nit ku ne amul lu dul réewam te réew mi ñu ñëpp ko bokk ndamam mooy suñu ndam danoo accompagner woon xale yi rek doon ànd ak ñoom rek ci ci ci ndam li waaye nag yàlla li mu def na mooy lu li gën looloo taxoon ñu jóg rek dem. Euh, euh, waaw féexal bi féexal suñu xol. waaw xo yii Côte d'Ivoire beneen affaire la. dégg naa de ananas ak lépp maanaam waxuma la leen sax waaye koko gi <laughs> bidéel bi da ciy naan ba ba bay tërëf <laughs> Côte d'Ivoire daal. Ah. koko ko rek koko koko ndoxu koko rek jar dem moom <laughs> barkeent bi. Seydou tàggkatu yonent bi Seydou buñ la fekkee ci tànt bu mel ni moom kenn du ne loo fiy def. waaw Medoune maa ngi lay ziar maa lay nuyu bu baax di la bëggee ah, wax nga ko léegi Ablaye Thiaw day sama xarit di nit ku baax di sama soppe di sama waxtaanukaay di sama lépp nag moo tax yow bu ma ñëwee fekk la fi li nga wax dëgg la Ablaye sama xarit la te bis bi bisub jullit yëpp la macha allah waaw. bëggoon nga ñamal ma tuuti ci ci ci sang bi bi tax ñu tànt nii loo may wax wa badalil wujudi min ka karimun sayduna muhammad min karimin abaul kurama wo sayduna muhammad lam yusawuka fi ula xawaxan xaalat sanal min ka duna wasanaamu ka ca Madina mooy sayduna muhammad mooy muhammadun nuuru abdillahi cheybata haashimin wa abdil manaafin ma xuseyhimi yàlla na baat bi wér kontaan nañ yàlla nañ ko teewe ay déwéni déwén ana Ablaye Thiaw loo koy wax waaw Ablaye di ko ñaanal rek yàlla defal ko gudd fan ba lii nga xamante si nii woy juram moo ko daan def yéen wi yàlla na woyof ci moom yàlla ko yàgg def ñu yàgg ko fekkee te taal ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mais ba dun après il faut ñu def dara yow incha allahu rabbi waa ñu ngi ci appel bi ba léegi. ñu ngi kër Serigne Mor Laye suñu Ablaye Thiaw moo ko kii ñu fi nag suñu jigéen kenn du ne appelul sol mbasin bu rafet sañsalu rafet sama jigéen noo noo noo dundee appel. maanaa kontaan rek di wax salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jox ñëpp seen yéego waaye fépp fooy nekk rek nuyu naa la di la ziar waa di sant sunu mag ji rek euh, Rose euh, moom la ñuy dooleel si macha allah mu nekk sunu mag bu baax di soxna su baax macha allah di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay ati at fekkee ko ay déwéni déwén. lépp luñ ci ñaan sunu borom bi defal na ko ci barki Muhammad barakatu rasul alayhi salaatu wasalaam kontaan nañu torop kontaan nañu di gërëm sunu mag bu baax a baax Rose Diagne madame Laye ñu ngi koy ziar bu baax a baax alhamdulilah gis nañ tey sa teewaay ci appel Seydina Limaamu bi ah waaw waaw teew naa si teew bi si bi Limaamu Laay sama bisu maam bi kontaan si torop si ñaan ñu teew si ay at yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri kenn bañ a manqué wax dëgg yàlla kontaan nañ trop te lii moom woote la boo xamante nii ne moom dootul fay ba abadan daay man ndambe looy looy ñaax jamono bi dëgg si sunu jamono bi coow réew mi bëri na loolu. xanaa ñu def si suñu sëriñ wax rek maandu te yem fi ñu war a yem jaamu yàlla ak limaamu almaxdu yu roowalaay mii jaamu ko topp li mu ay ndigalam li mu sant. ñu topp ko li mu ñu sant ñu topp ko lim ñu tere ñu bàyyi ko suñu sëriñ lim ñu wax tey jii nii nañ ko jëfe ñun ñëpp. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah nee naa commune ñu ngi fi tey kër Seydina Limamou nekk tey kii la xam ni tey ah, ñu ñëw fii tey ci kii xam ni mooy yaay booy gisanu sa teewaay gisanu sa teewaay tey jii ci appel Seydina Limamou gis tey sa toogaay bu rafet bi tey aaju boobu daay laay la tey tey Ndakaaru Ndiaye jal Diop Sàngamaar képp kuy doomu laayeen muy doomu bokk ci rasulu leex na Seydina Limaamu ñu gis tey sa teewaay fii ci bésu sëñ Seydina Limaamu waa kër Ablaye Thiaw Laay bu Rose Diagne Ablaye Thiaw Laay di wax di sant yàlla rek di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di kontaan aussi ci teew ci kër gi macha allah gis nañ fii ay yu baax macha allah ay berndeel yu baax macha allah gis fi ay kilifa euh, donc suñ taxawaay fii suñ ñëw fii à chaque fois mbégte lay nekk mbégte lay nekk kontaan trop lañ def ci bis bi macha allah. looy ñaax jamono bi gis naa jamono coow li bëri lool ci réew mi la gis coow li bëri na tàkk-tàkk yi na entre opposition pouvoir looy ñaan yéen yéen doomu Laayeen bi surtout Laayeen bi looy ñaan ci Sénégal. waa li ñuy ñaan rek mooy na ñëpp dal na ñëpp dal gis nañ situation bi. wax dëgg fa yàlla kenn rafetewul ko kenn rafetewul mu nekk ku nekk au pouvoir mu nekk opposition mu nekk loo xamante ne dafa ñaaw mais nañu dal ñu waxtaan parce que lépp ñun la surtout ma jeunes yi ma ne ko lépp ñun la surtout ma jeunes yi donc nañ gën a taxawu gën a waxtaan rek waaw incha allah. jërëjëf Medoune Diouf nee naa la daan naa la wóolu ku daan ngay féete kaw Medoune les grands événements les grands événements. ah gis ñu ñu ngi ah ngi nii na ci joxe fruit beeg dessert bi ndax Ablaye Thiaw Laye bu Rose Diagne dafa woote Dakaru ndax tuddee ko wàllum kër baayam Seydina Limamou wala comme dem ah ki la xam mooy kan El ba Bassirou Diagne Marème le grand sëñ Dakar ki xam ne su réew su réew tàkkee danaan tekk taxaw ñaanal réew mi su réew tàkkee danaan tekk wóor nañu muy maam muy Serigne Bass El Hadj Bassirou Diagne Marème waana ñu ngi fii ci yu neex yi avec grand traiteur. ndawal yaa ngi nii désert yaa ngi nii Ablaye Thiaw woo na ñëpp désert yaa ngi nii macha allah baa ngi noonu lépp luy terangale Ablaye Thiaw caw ko ci bésu maamam bi lépp luy teranga Ablaye Thiaw bu Rose Diagne bu Séné Laay taxawal war a taxawee ànd ak ay mbokkam ànd ak ay magam ànd ak ay xaritam waaye ànd ak ay soppam ay Médoune la pressoir waxoon naa la ko. mu ne namoon naa la. na lii na lii mooy gato yu ndaw yi ab géwél bëgg na ko loolu mooy gato yu yi ab lawbe bëgg na ko mooy gato yu ndaw yi waaye képp ku baax xam lu baax la ñëwul fii ci Toucar traiteur lépp ñoom la te seen traiteur lépp ñoom la lu jum njaag ñooy njaag Ablaye Thiaw woo na traiteurs yi woo na ña lax a yàpp ña lax a ginaar ña lax a gëléem eh mbay mi dun namu naa loolu nee naa la koko koko yi daanaka taamu ku lekk yàpp naan boisson war a naan koko tey koko yi yëpp li ñaax war a naan ki naan ci koko yi suñu ko def ko koko laax ba koko rafet Ablaye Thiaw laay moo woote nee naa gis naa sa musóor ngaaj ko ba mu baax ma gis sa teewaay ci sa xarit loo ci wax tey. waaw sëñ Issa Diaw moom sama xarit la sama lépp la sama papa mu baax gën riis Mari Ndiaye moo ma booleex moom ba ñu xamante ba tey na mais dara ñaawul muy sunu kilifa muy sunu lépp appel bu neex ba dee na ñu koy ñuy ñaan ñu koy fekkee ay déwén ni déwén sunu borom bàyyi ñu fi dëkk bi am jàmm salaam ñëpp ne ci jàmm

taxawaay ci bés bi. merci. muy 144e appel. oui oui exactement. ah tu parles en français. non non je parle. ah tu parles wolof. oui je parle wolof. ah ñu gis sa taxawaay bu baax a baax. oui merci. naka sa teewaay tey ci bés bi. Euh, genre comme chaque année machallah Tata Rose elle nous accueille bien elle nous donne à manger les gens ils sont bien habillés di waxtaan di kaf di foo vraiment machallah comme chaque année. mais du kii daal tubaab la. nee na si waaw tubaab la tubaab la tubaab la tubaab tubaab ñëw na appel Mari fa dem den du wax waaye na Mari Ndiaye Mari Ndiaye doomu Waly Seck Mari Ndiaye jàmbaar yow Médoune nee naa ko ci sant ngërëm di gërëm ñëpp salaamaaleykum waaye yaay booy noo gisee appel gis naa moo tax ko ci Ebrod eh, fépp lay jaar Ebrod eh, fépp lay dugg Ebrod eh, ñëpp lay àndal gàcce ngalaama waaye sant nañu ñëpp di ko ci incha allah ci 144e euh, après seen naa limaamu muy kan Ablaye Thiaw xale bu am jom Ablaye Thiaw di jàmbaar bëgg loolu président Amadou Ba foog loolu président Amadou Ba ko Ablaye Thiaw yàlla yàlla taxawu yàlla bàyyi la fi lépp lu Modou Laye sëñ Modou Laye ñaan yàlla yow ci yow dëjë Seydina Mohamed daa ko ci ak Bass Thioung xale bi nga xam ni macha allah bokk ci kër gi nekk doom ci kër gi bokk ak Rose Diagne bi nga xam ne Bassirou Diagne ay baayam Bassirou Diagne di maamam ñu tudee ko Bassirou Diagne te ñëw ñu xool sa teewaay te ci bés bi waaw loolu wax nga lépp yow fii suñu kër la waaw sama kër la sama kër cousin sama kër cousin la sama kër ay cousine lañ waaw dëgg neexul. <laughs> ñu gis euh, fan yaa ngi yaa ngi ngi taxaw ci Sénégal dimbali nit ñi sa loxo xale artiste bu ci doog a jug la jël sa alal sa teraanga ci dem. Mm-hmm. waaw mais daf lu baax daa am solo yàlla nañ ci sax rek ñun ñëpp dëgg du neex. <laughs> looy ñaax ci actualité réew mi jamono bi en tant que euh, artiste. Mm-hmm. ndax yéen yéenay parolier du Sénégal yéenay wax yéenay yor kàddu Sénégal yéenay yor kàddu réew mi yéen dara soo amee fan am loo ci sànni pour apaisement. waaw di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi nu mu gën a gaawee nu mu gënee xam nga ndax ñoo bokk réew mi ñun ñëpp te population bi ñooy réew mi population bi ñoo yor lépp population bi tey jii lu ñu bëgg ñu pasi war a ànd waaw di ñaan yàlla xam nga gars yi déggal leen jox defal leen lu ñu bëgg daal defal ñu lu ñu bëgg muy jàmm waaw nee naa ko alaaji bas cing bu baax bi xale bu am jàmm bi ki kii dama koy gërëm ci parce que dafa boo xam tubaab bi la patience ne tue personne l'Afrique est le berceau de l'humanité tubaab bi naan fuyee ne c'est nulle part looy pas de passe maa nga xoon pëtë pëtëx nëmbax nëmbax ko am jom yaayam ju baax ja taxaw na ma bas yéen yéenay aadama ak awa barki yonent bi kon bas yàlla yàlla fa cat dañ dee Seydina Mohamed ku am jom la Baye Fall la ni ku yiw la ni ku am personnalité la zéro faute fu waay xewle yaa ngi fa lu waay xewle ci lu baax yaa ngi fa bu soo wax lu bon bas l'homme arc-en-ciel le maire